na ay buntam jamono ji ngir ay waxtaan ngir ay concertation ma ngi ci yéen a kaay gi di réew mi quotidien yéen di la quotidien yor na Mansour yi na ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi tey ji la ñu ubbi gerew a kaay na transporteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi bokkuñu gis-gis ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum gerew bi ndax am na ñoo xam ne nag bokkuñu ci grève bi journal bi di la sa xëy di ñu xibaar naan ñu lu metti yàgg na am ci senegal ci lu jëm ci wàllum accident te ba léegi saafara amugu ci ndax ñoo ngi fàttaliko batalo Joola ñoo ngi fàttaliku accident bi amoon ca Bitante maanaam naufrage boobee ginnaaw loolee tamit Kaffrine gis ngeen bërki démoo Njaay ñaa fa ñàkk seen bakkan ci l'accident ak ca diwaanu Sàkkal journal bi nee na avion armée bu Sénégal tamit daan woon na fi lakk yi nga xam ne mooy am ci bërëbu fajukaay yi maanaam ci hôpitaux yi mel ni tulleeg male na Mansour Faye ak ko lu jëm ci ñi nga xam ne ñooy sàkko mu daal tekki ndombal tànkama Mansour Faye tontu na leen nee na ñooñee bay boo ñu mën a xaar ndax demuguma fenn yéen a kaay gi di Sud Quotidien moom Mansour Faye nee na mesures yi nga xam ne nguurug Sénégal jël na ko ngir nag saafara accident yu métti yi am ci réew mi loolee du ñu ci deltu ginnaaw benn yoon te képp koo xam ne jalgati nga ko yoon dina dal sa kaw yéen a kaay gi di Le Quotidien xëy du ñu xibaar naan xam ne mu lañ dénk wàllum transport bi ci réew mi nee na nguurug yoon ci mesures xam ne maanaam jël na ko te nag jamono ji ñi nga xam ne ñooy sàkko ma faaw ñu am endurance ndax demaguma fenn moom Mansour Faye ma ngi avertir ñi nga xam ne ñooy gréfis yi maanaam ñi dem gréwo Mansour Faye ma ngi leen di avertir yéen a kay gii da la témoin nee na bu ñu waxante dëgg état bu jël ay dogal ba pare deltu ci ginnaaw état bi tàmmal nañu ko ba pare tamit ñàkk li nga xam ne mooy ay décision ndax état bu jëlee ay dogal dafay wax ne na ko ñëpp respecté waaye nag li ñu ci nemmee ko mooy wax jamono ji kay mën nañoo wax ne faiblesse restera à la loi yéen kaay gi di réew mi quotidien lu jëm ci accident bi am bërki démb ca diwaanu Sakala procureur ubbi na a xëy na ñi nga xam ne ñoo moom ñaari oto yi déglu nañu leen moo xam kii moom oto camion bi ak kii moom oto njaga njaay bi waaye ñaari oto yëpp nekkoon nañu en règle dañu leen bàyyi ñu ñibbi li nga xam ne moo ci des nag mooy mbaam mi nga xam ne moo waral accident bi te mbaam mi dee na kan moom moom yi di wër ñoom leen xamu leen kan moom mbaam mi nga xam ne moo créé accident bi waaye gars yi nee ñu ko déedee tey yéen i kay gii di la peuple quotidien nee na Mansour Faye mi ñu dénk wàllum transport bi dafa demoon ca diwaanu Louga ca hôpital ba ngir na xool malade yi nga xam ne ñoo fa nekk waaye nag gars yi dañu ko yuuxaloo yuuxaloo ji wu Mansour Faye wu wu démissionnaire Mansour mel ni tulleeg ma yéen i kay gii di la soloy xëy di ñu xibaar naan ñu train express régional maanaam bi ba mu commencé daw ak léegi toll na ci benn at waaye nag bi ñu ko xayma lu toll ci fukk ak juróom ci ay millions doomu Sénégal laal nañu terre bi maanaam yéeg nañu si yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy di xibaar nan ñu bi nga xam ne armée bu Sénégal ma ngi koy def ci diwaanu Casamance am na benn soldat boo xam ne rey nañu ko am na ñeent ñoo xam ne am nañu si ay gaañu-gaañu yéenekaay gi di bés bi xëy di ñu xibaar naan ñu journaliste Cheikh Yérim Seck dafa génn benn livre nee na Ousmane Sonko ci atum ñi nga xam ne ñuy waa police dañu doon def patrouille bi ñu ñëwee ci bu gaare fekk ci biir oto bi Ousmane Sonko moo fa nekkoon ak benn xale bu jigéen ne ab Gambien la ñu fekk ne anam bu doy waar la ñi nga xam ne ñooy agent yu police yi dem wax ko seen kilifa ministre de l'intérieur moom tim daal di ko yegg njiitu di président Macky Sall Macky na leen bàyyi leen ko mu sedd waaye nag histoire bii nga xam ne Cheikh Yérim Seck bind na ko Moustapha Diop di journaliste ca Walfadjri nee na mbir mi daf ko jaaxal ndax histoire bii nga xam ne Cheikh Yérim Seck wax na ko moom Moustapha Diop ak tas ko du xabaar yu bare bari ci atum 2012 déggoon nañ lu ni mel maanaam histoire bi avant Ousmane di dugg ci wàllum politique ndax moom Moustapha Diop nee na ci élection présidentielle 2012 dafa amoon benn candidat boo xam ne ci opposition bi dañu ko fekkoon ci corniche bi moo ko jigéen ci benn oto agent policier yégal ko ministre de l'intérieur ba fa nekkoon di Ousmane Ngom Ousmane Ngom yégaloon ko maître Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade ne bàyyi leen ko mu sedd Moustapha Diop ne histoire bi laa gisaat Cheikh Yérim Seck mel ni ku soppar ñu tur yi maanaam jël usmaan Ngom dugal fa Antoine Diome jël wa Wade dugal fa Macky Sall jël candidat 2012 boobee dugal fa Ousmane Sonko Moustapha Diop nee na lii bëri nay journaliste yoo xam ne yégoon nañu ko gars yi dañu ko nëpp nëppaloon ba tey moom journaliste bii di Moustapha Diop Diop moom nag dafa njortu ne Cheikh Yérim Seck dafa falsifié li nga xam ne mooy histoire bi daal soppar ñi li nga xam ne mooy acteurs yi yéen i kaay gii di Vox Populi nee na lii Cheikh Yérim sekk bind est-ce que duy kàcc maanaam est-ce que du fausse histoire yéen i kaay gi nee na Cheikh Yérim Seck bindul rek ci Ousmane Sonko bind na ci capitaine Touré capitaine Touré moom nee dina yóbbu Cheikh Yérim Seck fa mbaxana doone benn ndax dafa jàpp ne da koo sosal da koo wax lu dul dëgg ndax Cheikh ci biir livre bi dafa bind ne plainte Adji Sarr bi capitaine Touré daf ko photo envoyé ko Ousmane Sonko ak yeneen mbir Kapilin Touré nee na dana ko yóbbu fa mbaxana doone benn ngir mu andi ci preuve journal bi di enquête xëy wax ci dossier Necotrans ak scandale bi nga xam ne ñoo ngi ko fay wax journal bi nee na ubbi nañu ci enquête boo xam ne jëm na ci wàllum corruption ak wàllum blanchiment de capitaux Cheikh Kanté ak Grégory Gerel ñoom tudd nañ leen ci mbir mi yéenekaay gi di Le Quotidien ñu xëy fekk fa Moustapha Ba ministre bi ñu dénk wàllum finance ci réew mi moom nag wax na orientation yi nga xam ne dinañu ko amal ci budget 2023 bi di am ci yéenekaay gi di Rewmi mooy mbir mu doy waar mu xew ci diwaanu Kër Massara dafa am benn wisil boo xam ne dañu ko fa faat ay samba boy ay bandi ñoo ñëwoon ci benn kenkayire benn boutique waaye bi ñu fa fekkee wisil bi dañu koo dóor bal mu seddu ko ya gi di sunu lambo nee na CNG jël na ay daan yu métti lal ko ci nodul Ada ak Zarko ñaar ñi xam ne ñoo doon bëre bërki lu toll ci benn at la ñu leen suspendre dagg nañu leen lu ëpp ñaari million journal bi nee Gaston production dafa bëggoon a tëgg Lo ak moo tax